al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum waa ibaadatu wal xidma bu baax di la waxtaan yi ñu fi andi te benn jigéen bu nekk France def ko jëmale ko ci euh, marque bu ñuy jaay bu ñuy wooyee Nutella euh, marque boobu xeetu chocolat la wax na ci lu bare bare nag man nag mën maa wax ci màgg ndax xaw ma nuñ ko defaree kon dama yar rek ci wàllu lu jëm ci xeetu chocolat ak sukkar su bari ku ne xam ne chocolat yi njaay moom ñaare day bari sukkar lool sukkar su bari nag te loo xam ne toujours yóor daf ko bëgg ndax yóor sukkar li dunde yóor soxlawul yàpp yi ñuy lekk yóor soxlawul dawlin bi ñuy bi ñuy bi ñuy jëfandikoo itam moom daal sukkar la gën a soxla sukkar nag dafa bokk ci li nga xam ne loo ko gën a lekk gën ko bëgg te chocolat da ko saf lool xale yi bëgg ko ba tax na xale yi bu ñu koy seen mburu lu mu gën a lu ko gën a diw moo leen gënal am ñoo xam ne jaay ci ginnaaw di ko loqati lekk am itam xeetu chocolat yuy jaay ñuy jënd di lekk suukar nag bu ko nit di lu bari dana ko jural yaram surtout bu dee xale yi nga xam ne dafa toll ci màgg su boobaa wala mu yóbbu mu yóbbu ci jabet wala yu mel noonu comme ni mag ci lu gaaw moom daf koy jural yaram bu bari ndax daanaka lu mu lekk sukkal si rek yaram da koy jëriñoo ndax dafay kuy màgg day mel ne garab gu ñuy roosee di ci def tos bis bu ne la muy màgg gi bokk la garab gu dem ba màgg nga di ko roosee di ci def tos du bokk tos jooju mën naa lool bu dee garab gu mag waaye bu dee garab gu ndaw dafay dolli ak màggaay noonu la mel foofu daal lañ ci mën a yem ndax duñu tooñ marque jàmbur ginnaaw xamuñ ci lu bari waaye li ñu xam mooy daal sukkar moom lu mat a wàññi ci xale la bañ ko màggaale ndax su ko tàmmee rek da koy gën a bëgg tey ay loraange rek day jur jërë ngeen jëf waaw asalaamaaleykum waa Ibrahima xëy na suñu xabaar maa ngi leen nuyu baax la ziar di nuyu bu baax ah, Serigne Ibrahima juuf di ko sant ci audio bi mu def jël responsabilité am wax ko def audio bi ñu bari xam ko ci réew mi mu nit ku baax te ku ko dégg xam ne li mu wax yépp kàddu yi dëgg la kon ah, dana tuuti ci man may firndeel ay kàddoom waaye damay wax nekkoon li mu wax moom laa wax ndax loolu yaa yaakaar naa ma nañ ci def waxtaan maanaam nit su tëjoo ci nit yor lépp loo xam ne day tàkk lu mel ne fourne lu mel ne yenn résistance électrique yi nga xam ne sax dañ ciy tàngal ak yu mel bi nga xam ne moom lay moom la soxla ci yaramam lépp luy safara da koo soxla te boo jëlee ngelaw lii nga xam ne moo nekk ci jaww ji ñun ñëpp ñu di ko noyyi soo jëlee téeméer ñaar fukk ak benn moo ci oxygène mooy li nga xam ne moom la su yoro yaram soxla ni su dee noyyi bu xëccee bu xëccee ñu wax siiru su boobaa ñaar fukk ak benn moom la ci yaramam di téye muy oxygène mu jëriñoo ko la ci des di juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu koy wax gaz carbonique nit ki da koy génneewaat oxygène boobu nag moom mooy lépp luy safara moom la soxla nga xam ne su manqué woon boo taalee ab taal du tàkk boo taal ab taal itam dem yàgg mu manqué fa day jéem te loolu pour xam ko yomb na jël ab sondeel nga taal ko jël ab kaas nga këpp ko ci ndànk nga di ko xool boo tàkkee ba mu yàgg rek day fay fayul ndax dafa manqué ngelaw ci biir ndax taxaar si génne sax ngelaw la waaye dafay fay ndax oxygène bi ci boppam moo jeex moo tax suñu borom andil ñu gàncax ñu war ko aar bu baax a baax ndax gàncax dafa wóotee nit ci foofu nit li muy sànni moom la gàncax soxla gàncax la muy sànni moom la nit soxla gàncax moom gaz carbonique bii ñuy sànni moom moom la soxla oxygène bii ñuy soxla gaz carbonique moom da koy sànni euh, gàncax da koy sànni moo tax dëkk ak ay garab ak ay fleur ak xeet yu mel noonu dafa baax loolu ci doomu aadama ndax day tax sa kër du manqué yu mel noonu kon jamonoy sedd bu duggee nit dugg ci néegam taal ànd cuuraayam te di sàngu moom mi ngi noyyi di naan oxygène di ko jëfandikoo di génne gaz carbonique waaye ànd ci raay ba ak lu mën a doon na ngay moom itam di ak la muy tàngale yéen néegamam yëpp na ngay naan oxygène ba di génne gaz carbonique ñoom ñaar ñoo bokk li ñuy génne bu demee ba mu yàgg nag néeg bi dafay manqué oxygène boobu te safara dafa am gas bu gën a bon sax gaz carbonique ñi nga xam ne dañoo jàng chimie dañuy ràññale ñaar dañuy wax CO2 ak CO nga xam ne day am li wax molécule carbone ak benn molécule oxygène ak boo xam ne molécule carbone ak molécule oxygène ñaari yoon bi nekk C O ñaari yoon boobu mooy gaz bi nga xam ne nit su noyyee da koy génne ak euh, waaye waaye bi nga xam ne benn carbone la ak benn oxygène muy C ak O rek ñu di ko wax monoxyde de carbone boobu xal boo ko taalee dafa am lu ci génne boobu nag mooy danger bi ndax boobu day boo xam ne baaxul ci nit te bu nit ki bu ko noyee bu yàggee da koy mën a téye da koy paralyser loo maa mën na koo tee mën a yuuxu mën na koo tee jug nga xam ne nit ki day toog nii ci néeg bi yëg ne moom kat mi ngi jëm ci faatu te du mën a yuuxu ñu wàllu ko du mën a jóg raam nit ko kon dafay am jafe-jafe ngir yuuxu ñu wàllu ko day am jafe-jafe jug sax raam fëgg bunt néegam ñu ubbil ko ndeysaan nit dana ko romb sax mu dégg ay tànkam mu bëgg koo woone ko kaay wàllu ma te du ko man ndax lépp day paralysé bu bëgg jug sax fay fay fourne bi du ko sax man muy déggu xaw a metti am ñuy wax déggu metti te sedd waaye yàlla rek xam kon nañ ko bàyyi xel rawatina bu fekkee nga xam ne nag ba ñu tëdd ay mbooloo la fa tëdd ñaar ñett ñeent ba juróom yooyu yëpp wóorul kon daal loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax jéey la ji am ci réew yi léeg-léeg jërë ngeen jëf. salaamaaleykum maa ngi nuyu baax waaw am na mbokk mu doon laaj ci wàllu bëñ te wax ne dañ ne boo dinee bëñ ah, daf lay jural néew kàttan ak nu maa doon waaw loolu de dama jàpp ne xëy na. waxee ko noonu mën na indi njuumte mën na indi njuumte ndax bëñ dafa bokkul ci li tax nit ki am wér gi yaram ci naka bëñ su nit ki sexee di lekk la mu seex moom moo koy daggate ba mu sew ba sew ba def ay ràññeemiit yoo xam ne su ko wanaasoo bu jàllee ci mbàq gi mbàq ga da koy daal di mën a togg ci saa si suy rees rees rees bu baax a baax a baax a baax ba tax na kii ñàkki bëñ euh, lekk mu rees rees bu normal dafay xaw a jafe ci foofu lañ ne ñàkk ay bëñ mën na waral nit ki am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram waaye du caagi ne ñàkki bëñ mu ma jural nit ki feebar loolu de xamuñu ko ci wàllu médecine te bëñ nag am na foo xam ne bu fa tollee nga xam ne dafa bënn dégg nga ba nga xam ne saa boo lekk muy metti di ay ñam di ci dugg di la indil jafe-jafe léeg sax mu lekk bay sax bay bay bay xëppatiku di wadd kooku yaakaar naa bañ amatu fa kon bàyyi gi ak dindi gi gis ma lu ñuy war a wutale lu dul dindi gi gën bàyyi gi ndax bàyyi gi dafa na jur loraange waaye bu dee ci wàllu lekk ñoom ñaar yaakaar naa ñoo yem amatuñu njëg kon bañ su fekkee dafa feebar des ko war a dindi bu yàqoo ba nga xam ne mënees ko faje neneen des ko war a dindi bu dee nag ci wàllu traitement bañ dana bënn ñu plombé ko bëñ dana bind ñu ñu gratter koo def ci lu ne ngir mu continuer nekk fa bañ dana damm itam ñu wut matière bu xaw a niroog moom kole ko ci sofe ko ci noo xam ne boo gis da nga yaakaar ni bañ bi dara sikku ci woon loolu ni mu amee Europe noonu amee Sénégal dafa nag gën a cher mu gën a cher sax poosé waaye ñu ngi koy def ci réew mi kon ku ko ku ko man tam nga def ko waaye nag loolu li koy waral ñaari mooy day fekk bëñ bi feebarul siiñ bi feebarul yax ba ci suuf itam feebarul comme te nit koo xam ne da doon sport comme boxeur yeeg mbëru làmb yi wala sax mbirum seytaane ñaari xeex kin dóor moroom bëñ bi damm wala gis nañ ko ci xare xale bu daanu bañam damm fekk foqoon na ba noppi kooku su boobaa mënees na koo defal loolu maanaam defal ko yokkal ko ci bëñ bi loo xam ne dañ ko ci collé mu mel ne bëñ bu njëkk ba médecine médecine léegi moom ma daal ci xel ñëpp daanaka lu ñuy def Europe ñu ko def Sénégal ndax sa poos attan na ko kay wala wax ji nekk waaye nag bañ bu yàqu itam ba nga xam ne bëri na da ci Sénégal di jéem ko si néew ci tubaab bi ndax moom bu dañ koy dindi ndax danger ba ca su fa tax ndax bu nit ki di ko yar yoyal bu yàggee mën na ko jural problème cardiaque na mu ko juralee cardiaque mooy dafa am xeetu microbe yoo xam ne lépp lu jëm ci wàllu comme tey angine nag lépp lu jëm ci wàllu gémmiñ ñaare dañ ko bëgg lool mu ñor bi ñuy woowee ci médecine streptocoque bêta hémolytique du groupe A ñun noonu lañ koy woowee microbe boobu nag ni ko suñu borom bindi ci deram dafa niroo dafa niroo bindinu wal wal fa yi nga xam ne moo nekk ci diggante euh, paxi xol bi niroo itam kujum yi nekk ci ay wóom ak i tenko ba tax na sa yaram bu koy xeex di ko attaqué dafay mel da koy jaawale microbe bi ak euh, walfa yooyu nekk ci biir xol bi jaawale ko itam ak kujum yu nekk ci wóom yi ak tenko yi ba mooy jural nit ki léeg-léeg bu dee xale buy am angine bi répété wu wala ko am problème bañ négligé ko bu yàggee mu jural ko li ñuy wax incidence cardiaque nga xam ne xol bi daanaka dutu mën a tëju bu baax li ñuy wax valvulopathie ci médecine nga xam ne xol bi daal duutu mën a pomp deret tëju bu baax mu daal bokk ci ñuy wax cardiaque waaye itam jural ko ay problème rhumatisme ay rhumatisme boo muy metti ay tànk yu metti ñuy wax rhumatisme articulaire aigu loolu kon soldat nit ki nit ki ci boppam moo doon attaqué am noon noon ba niroog lu bokk ci moom mu attaqué waale ko kon bëñ lu ñuy yar yaral lu ñuy faj la lu jaadoon sax mooy ku nekk da am ab di dem ci moom léeg-léeg mu di la say bëñ soo ci gisee la jaaxal dem mu traité ko ko def ko yàlla may man-man bi ah maa ngi koy santaane na nga wut dentiste bu wóolu dénk ko sa bopp ci wàllu mu lay saytu say bañ ak say bañu njaboot lu ci am solo la asalaamaaleykum wa rahmatullah si xabar maa ngi nuyu baax léegi ziar waaw ndox mu tàng moom lépp luñ ci wax rek ci baax bi moom mi ngi ci waaye nag bëgg lu baax lu tax nga tànga ndox ba mu di la gaañ jëlu ko bu ñu wax ndox mu tàng dañuy naan moo gën ndox mu sedd loolu lañ ci jublu xam nga doomu aadama suñu borom ko koo bind ci tàngoor ndax ci ñun ci wàllu science yi ñuy natt ci wàllu euh, xaw ma lu ñuy waxee température ci wolof nag sedd ak tàng daal suñ koy nattee nga xam ne leen séparé ñaan ndox mi bu agsee fii dugg ci glace bu génnee fii dugg ci ndox moom la ñuy wooye zéro degré celsius zéro degré boobu degré boobu lañ ne lu ko gën a suufee dugg ci glace bu dee ndox su ko tiimee dugg ci ndoxe kon bu tàmbalee ci sero bi yéeg ba 37 degré foofu la la doomu aadama tàngooram nekk nit 37 degré mooy tàmb tàngooram température kon ku am thermomètre yooyu ñu netti tàngoor boo ko dugalee ci sa poqataan lu ma 2 minutes 3 minutes ba 5 minutes boo génnee 37 degré la war a doon bu ci daal di yokk wërta bari bu dee néew itam wërta bari kon nit ci tàngoor la ko suñu borom bindee kon nit ki su nelawee ba yeewu bu jëlee tàng naan loolu moo gën ci moom te yaakaar na loolu moo tax ci àdduna yépp ni maase ci musuma gis ku yeewu di ndekkee jus bu sedd ku yeewu la nga njëkk xalaat mooy attaaya ju tàng wala kafe gu tàng walla bisaab bu wala wala wala sexaw mu tàng wala xeet na noonu kon su ci doomu aadama yépp dëppoo loolu rek firnde la ci ne lu tàng jiitu ci biir sax dafa gën xëy na nag lu sedd suñ koy jël mooy mooy li ko waral mooy dañoo dëkk fu tàng digg bëccëg nag boo doxee ba sonn tàngoor yu sonal la nga xam ne sa tàngoor température yi yéeg na lu xaw a bari ah foofu nag yaram bi sax moom température yi yéeg waaye ni nga koy yéegee bari na ndax sa yaram am na lu koy régler ba température lu mu tàng tàng du soppiku waaye nag yow da ko yëg da nga yëg ni jamono ci tàng na foofu nag nga naan lu sedd mu daal di balancer tàngoor bi ak sedd bi itam da ci am solo la loolu su boobaa sedd dafay daal di am njariñ ndax su amuloon njariñ yaakaar naa suñu borom du ko bind waaye ki nga xam ne tey dafa dëkk Europe ci fu sedd di taw glace kooku yaakaar naa xalaatu ubbi frigo mukk di jël sedd di ko naan kon naan lu sedd bonut waaye dafa am foo xam ne fa la amee njariñ ak amewul njariñ waaye ndax mu tàng moom li ñu ci wax rek ci am na waaye day faj lii day faj laa loolu moom moom moom moom nekkul lu nekk ndox la rek te loo tax na suñ mbokk chinois yi ak japonais yi li ci ëpp boo xoolee ñoom ndoxum glace daanaka duñ ko naan seen frigo seen dencukaay ndox li ci ëpp dañ koy bàyyi noonu rek ndox mu tàng la naan dina ngeen jëf